mën naa wax ne am na ñu bëri ñoo xam ne seen àddina yàqu na cat moo ko yàq am na famille yu bëri yu tas cat moo tas famille ba am na borom alal yu bari ñàkk nañ seen alal cat moo tax alal ja dem am na ñu bëri ñu nekkoon ci seen place di liggéey place ba ñàkk nañ ko à cause de lan cat cat moo ko waral am na ñu bari ñoo xam ne nekkoon nañ ci seen sëy di sëy sëy ba neex lool waaye lan moo leen jëlee ci sëy ba cat moo leen ko moo leen ko xañ am na ñu bari ñoo xam ne am nañ doom mu jafe leen ñu sàkk ko góorgóorlu ci ba yàlla may leen ñu am doom doom ja dem lan moo ko yóbbu cat moo ko yóbbu am na ñu bari ñoo xam ne tey yàlla dogaloon na ñu am tur siiw nit ñi xam leen kenn gisatu leen kenn déggatu leen lan moo ko waral cat cat moo leen ko teg am na ñu bari ñoo xam ne ay nit lañu woon yoo xam ne dañ leen a joxoon cër jox leen dara ñu dox leen dayoo bu ñuy wax ñëpp di leen déglu tey mën nañoo daje yow ci mbedd ngay xool leen doo leen sax nuyu lan moo leen ko teg cat moo leen ko teg am na ñu bari ñoo xam ni ay nit lañ yoo xam ni ay nit ñu am yaakaar ci seen bopp samp seeni mbir jël seen alal investir ko dugal ko ci mbir ba mu tàmbalee dox ba mu am yaa ba nga am yaakaar nga xëy lépp na furaas lan moo la ko teg cat am na ñoo xam ne nit lañ yoo xam ne ah, euh, ku leen gis tey na diw mi tey yaa ngi ko fekk ci melokaan bii doo ko mës a gëm lan moo leen ca dugal lan moo leen teg ca melokaan boobu ak niveau boobu ñu nekk cat moo leen ko teg cat nag damay wax ne képp ku koy sikki sàkk dafa fekk dalalut la ba bàyyi la waxuma kum dalagul waxuma kooku de waxuma kim dal mais ki xam cat mooy ki cat jàpp ba bàyyi ko kooku moo xam lan mooy cat